ngir rek solos bës bi ziar nañu nag xalif général ndax nee naa lépp loo xam ne def nañ ko ci dispositif sanitaire fii dëkk bi ku nekk xam ne ne foog mu sànni si ñaan dispositif bi nga xam ne def nañ ko sëñ bi mooy post médical avancé moom mooy poste de santé yi nga xam ne nekk nañ fii mooy centre de santé mooy l'hôpital niveau un 2 3 ba 4 mooy bépp kàngam boo xam ne mu ngi fiy liggéey mooy environnement de travail bi yëpp bi ñuy dugg nag service d'hygiène dañu duggee parce que dañ ko bugg a def innovation parce que dañ ne Sénégal lépp loo teg ci faj bu fekkente ne àndul ak prévention mooy saytu fagaru yaakaar naa duñu mën a dem si kanam sëñ bi Mbàkke may fàttaliku rek li rëy li nga xamante def nga ko bi nga xam ne Covid bi ñëw na ma fekk la sa kër nga jël chèque deux cent cinquante millions yow yaa ko njëkk a teg ci suma loxo bii maa ngi ci gërëm di ko sant da ci ziar nga waxtaan ak ñun nga ne ñu feebar bi naka la deme ñu wax la ko nga ne fekk nga fekk si nga ñu ci li nga xamante ne moom lay wax mooy ne bu jiyee bu toll noonu amee bu kenn dem bu kenn dikk loolu la ñun ñu wax ci médecine confinement metti woon na lool waaye yaakaar naa ne ni nga ci teel a taxawu moo tax sénégal yi mun a comprendre man ndam bi nga xamante ne am nañ ko ci ñu continuer di ko am parce que may fàttali rek ne feebar bi jógagu fi sëñ bi Mbàkke ñuy am yaakaar bu baax a baax ci dispositif bi ñu teg wax naa ko ci njëlbeen lu mu am am solo professeur yeeg médecin yeeg sage-femme infirmier bu fekkente ne amul message yoo xamante waxtaan boo xam ne yaa ngi koy def te yaa ngi koy continuer def bu fekkente ne amul yaakaar na li ñu def yëpp day nërmeelu loolu moo tax duñu guddal di sàkku ci yow niñ ko defee si sa papa bu tedd bi xalif bi général di sàkku ci yow ñaan di sàkku également sénégal yi gën la déglu parce que gis nañ ne yëkkati suba ba ngoon jot dañ ci def jàmm jàmm ak salaam nga ciy wax sëñ bi dama ne suñu médecine bi du dem kanam bu fekkee jàmm amul donc ñu ngi sant bu baax bu fekkente ne yow loo yëkkati suba ba ngoon dox jàmm nga ciy wax médecine bi du mën a jëm kanam économie bi du jëm kanam ni développement sociale bu fekkee jàmm amul sëñ bi ñu ngi delloowaat di la gërëm di la sant ci jàmm bi ngay wax suba ak ngoon ñu ngi ziar di dolli ziar di wax ne xëj na du ñu mën a matale lépp mais ni ma koy faral di wax rek Sénégal du matale lépp mais ñaan yu am solo yi nga xamante yéen kilifa diine yi yéen a ngi koy ñaan moo tax du ñu mës a mën a dellu gannaaw donc sëñ bi ñu ngi lay sant. di la gërëm ci turu président la république ak ci turu gouvernement bi yëpp wax nañ ko yeneen secteurs yi lépp lu ñu liggéey rek man dama jàpp ne ñun lañ koy liggéeyal service d'hygiène du mën a avancer bu fekkente ne ndox mi sellul ñun duñu mën a continuer di fecc sans complication bu fekkente ne assainissement bi demewul noonu ñu ngi sant yàlla ba nga xamante ne Sénégal am na ñuy wax stratégie One Health mooy ñun ñëpp dañu boole wax ne ñun ñëpp dañuy liggéey li ñuy wax une seule santé te yaakaar naa yoolu kan gënu la see jiito donc ñu ngi lay gërëm di la sant xam naa ne ñaan yi moom doo ko mus a arrêté mais sëñ bi daal sant nañ la gërëm nañ la ak képp koo xamante ne tey ànd nañ ak yow si liggéey bi wax nañ ko monsieur le maire ka xaaruñu comité d'organisation bi xaaruñu ñi nga xamante ne comité d'alerte et de veille bi nga xamante ni suñu papa ji Mbàkke moo ko fi teg itam xaaruñu donc mun nañ wax ne Sénégal am nañ ci yaakaar ñu ngi sant mun nañu lim mënuñu sax lim ñi nga xamante ñoom lañ fi àndal parce que non seulement professionnel ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wërgu yaram ak action sociale ñëw nañ mais képp koo xamante ne rek wërgu yaram soxal na la ànd nga ak ñun tey communicateur traditionnel ñu fàttewuma leen acteur communautaire yi fàttewuma leen suma mag yeeg rak am di jàmm yi nga xam ne yëpp ñoo ma gunge sëñ bi fàttewuñ leen ñu ngi leen di gërëm di la sant di naan li nga xam ne moo am Sénégal yal na dakk ba faaw jërëjëf rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di delloo am nuyoo bu baax a baax di ko teg ci loxol ministère de la santé di soxna Marie Xemes Ndiaye ak mboolem délégation bi mu àndal bépp tey yënguti ci wàllu wér-gu-yaram te di nekk ci agronome di nuyu ñi nga àndal te bu ma ci tuddee gouverneur de la région Ndiarème di ko sant ca taxawaay bu baax a baax ndax gis nañ yitteem ak taxawaayam di nuyu di gërëm bu baax itam préfet bu département Mbacké moom itam ñu koy sant di nuyu bu baax sous préfet bu ndaam ñoom ñëpp ci seen taxawaay ak seen yitte ak mboolem service yi nga àndal lépp nag bàyyiwuma ci kenn Serigne Bara Gueye ak Mor Gueye ak ñi fi teew ñëpp. liggéey ci yow bàyyiwuñ kenn di rafetlu kàddu yi dégg nañ ko bu baax a baax ndax yàlla def na comme ni nga ko lee eh, seere léegi maa ngi njëkkee gisante ak yéen ci bi nga xamee ne wér diggu feeñoon feeñoon na fi nga àndoon nag ministère de la santé ñëw ci sama kër ginnaaw bi sëriñ bi yónni ma ci yéen ci ndimbal li nga xam doon na ko joxe ma tegoon ko ci seen loxo waaye ci biir wér digi li mu doon metti métti gisoon nañ ci sa njàmbaar gi ci sa yitte gi ci sa taxawaay bu baax a baax rawatina lu ci ne ngay wax na mu demee te loolu boobu lu jafe la ndax nit ñi boobu wax ak ñoom yombut kon loolu lépp ay taxawaay la yu baax di rafet lu baax itam jéego yi nga xam ne defaat ngeen ko ni ngeen ko daa defee mu jëm ci wàllu màggal gi te mel na yokku na. ndax wàllu wér-gu-yaram xam ngeen ne fu mu amut dara du fa taxaw li wala fi di wax naan soxla bu dee ñaar boo wér dafa ne kon wér yaram mooy li jiitu ci lépp kon nag gis nañ taxawaay bi nga xam ne defaat ngeen ko ci ren ci ndigalu président Macky Sall ngeen def ko àndandoo ko ba yàlla def ñu nekk ci sottatale di ñaan suñu borom ci barke Serigne Touba ñu àgg ci ak te am ci ndam lu ëpp li ngeen ci da am ñu leen di sant bu baax di nuyu itam docteur Sourang ni moo ko ko seerale woon daaw rek xam ngeen ne maamam eh, titre foncier Touba taxaw na ci taxawaay bu rëy ak jumaay Touba ak yeneen yu bëree bëri moom mii itam eh, sëriñ Saliou moo ko indi ci dëkk bi ñu joxoon ko centre de santé bi bi Cheikh Abdoulaye tabaxoon waaw ma di taxawaay bu mat ba ba mu fi bàyyi ko hôpital bii gën a mag ci dëkk bi. ñu jël ko joxaat ko loolu liggéey ma tax moo tax dal nañu xel bu baax ci bañ ko ko tegee ci loxoom rek lañ gëm ne dana ko yóbbu fañ bëgg ñu yóbbu ko fa ndax nit bu jiitee dara te jàpp ne yëfa ma lu cee def jàpp ne kuy defar biir këram ma boo ko ko dénkee dana ko sàmm kon daal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa suñu bilaat kon ngeen ànd ak jóg ak maam bay taxaw leen bañ jëfandikoo ba door dem ñu ngi sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah baax na na ñëpp tàll sëriñ bi ñaan monsieur le ministre sëriñ bi ne nga jàll ci biir ñu topp toolam ba noppi dem